Bonjour internet yi sommes contents content de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission euh, wax sa xalaat euh, wax sa xalaat tey équipe euh, nationale du Sénégal ak match amicaux yi Wadel, le 9 et le 13 octobre ci est les matchs, joueur a xamante ñi ñu bi nationaux la Aliou wala intégré ci équipe nationale du Sénégal bi Mouhamed El Amine na mën Je la. maa raw na ça va ça s'est bien passé Alhamdulillah. Je mm. ngi lay la dalal.

Taylor l'année ni la équipe nationale du Sénégal. Mhm. je vous rappelle le numéro c'est le 78 150 74 72 78 150 74 72 et je vous rappelle aussi que l'émission est accompagnée par Canal Plus euh, Canal Plus qui est en promo ici au Sénégal et de c'est à partir de 1000 francs 1000 francs compte, euh, ba li nga fin du mois de septembre Bollingham, des décodeur à 1000 francs après après ngeen abonné wu mën disposé disposer euh, ci chaîne sport You euh, Canal Plus yi euh, mën item seetaan itam championnats. championnat yi gën a mag à savoir Ligue 1 Mom door na week bi seetaan ngeen ay Premier League ak li nga xamanté kon moo Liga mu des Série A Bundesliga mi particularité bi ci saison mais itam trois prochaines saisons yi ce sera en exclusivité sur Canal Plus. Mhm. loy waaw Canal Plus euh, mu nekk partenaire boo xamante ne nii tey mën nañ ne euh, début championnat yi gis ñëw li nga xamante ne nii moom mooy division match bi démb ku seetaan euh, Canal donc mhm. gis nga ne gis nga sa bopp en tout cas ci match yi ñu jote wala Marseille pare yeneen match yi voilà mhm. ñu jël ko ñu jël ko waaw d'accord allo allo allo salaamaaleykum allo allo oui sëñ bi yëkkatil baat bi tuuti ah na nga def. ñu ngi fi tur bi naka la. na nga def. maa ngi fi. allo allo malheureusement déggante bi neexul marché Paris marché bi xam nga lu tax bëgguma kenn tudd ko fi. déjà Amina mi ngi nee toog di sourire saaxo dina fi woote après. saaxo jot na ma woo marché bi dafa jeex rek mu woo ma commencé. di pour moom man je suis un parisien grand parisien moo tax match bi dafa jeex xamul ne man <laughs> xam ba léegi xamul sama équipe. ba léegi <laughs> ba léegi sama équipe xamu ko man match bi dafa jeex ak mu woo ma nee daf may mbalak noonu ma ne ko yow. Mhm. baax na rek dañ dem. en tout cas. Mhm. Euh, bu ñu dellu suwaatee ci thème bi. Mhm. ñu ngi aborder thème bu am solo parce que tey jii nii boo xoolee euh, ci weekend bi. am na ay joueurs yoo xamante ne ni quand même. Euh, wane nañu seen bopp surtout. ñaari binationaux yoo xamante ne moom la ñu def si affiche wax sa xalaatu tey bi. ku ci mel ni euh, Pape Gueye bu nekk Olympique de Marseille. Mhm. ak ki nga xamante ne nii moom mooy Sofiane Diop ku ci nekk si ñoom bëri nañ ah bëri nañ ay binationaux yoo xamante ne nii tey Sénégal war nañ leen bàyyi xel te aussi war nañu commencé di leen suivre parce que erreur yi ñu daloon. Euh, ci ci année yi voilà ak ñeneen yi mu bañ ñu dal ci yeneen jeunes sono yoo xam ne war nañu représenter le Sénégal. d'accord ñu jël maaleykum salaam ça va soxna si. ça bi maa ngi fi. très bien man la Aldo. Aldo fan nga ñuy woowe on s'appelle depuis Gossas. depuis Gossas yaa ngi en direct ci émission bi yow lañuy ñuy déglu. bon concernant match équipe nationale yi di ñëw. Mhm. bon à mon avis il faut il faut ñu rajeunir équipe bi daal. Mhm, c'est-à-dire bon ñu ñu ñu effectif bi nekkoon ñu yokk ci ay jeunes. comme eh, c'est eh, le cas de papa papa Alassane Gueye bi nek Marseille mhm. kooku man gis ni bon bien vrai que jeune warna war na équipe bi fekk fekkante da yenn tourain yi pour bu mu mën a mën a jàng si ñoom mhm. parce que bon ñu jom coupe d'Afrique 2022 euh, 2022 vingt vingt bi ñu euh, gis am na ñu bari ñoo xam ci ci effectif. effectivement. Uh-huh. donc c' est le moment ñu dugal ci ay jeunes ak ay ay jeunes binationaux wala ay jeunes yoo xam si ne aussi peut être ñu ngi ñu ngi ñu ngi dox ci championnat Sénégal sax mhm. voilà bu ñu defee loolu peut être yàlla dinañu dinañu dinañu kii mais en tout moom c' est le moment ñu ñu intégrer dugal que effectif bi boo xoolee li ñu yor mën nga ni mag ñi dañ ci xaw a bari daal saa yi. d' loolu moo nekkoon sama point de vue. merci beaucoup Aldo ñu ñu waa Gossas. ok merci beaucoup. Mhm. Elle yaa ngi un soulever point pour am Nous euh, avons gawantou ci yenn dossiers yi parce que ce sont des joueurs qui ont am nañ benn pied euh, France am nañ pied Sénégal et je me dis que ont deux pieds en France mhm. parce que non seulement ils ont une nationalité mais ils évoluent dans des clubs ce sont des clubs français mhm. euh, donc faut proximité il faut la gagner. Mhm. mais ce sont des joueurs qui ont un itam reniewuñu nous, C'est une origine et l'équipe nationale du Sénégal tout na moment boo xamante comme vous di jouer pour équipe nationale donc comme li nga c'est très important de jouer contre le temps pour yenn erreur yi ñu ñu ma la nga jël ko. Mm-hmm. Salut, Salam. Euh, ngi mm-hmm. euh, Ismaël depuis France depuis Paris. Ismaïla Goudiaby depuis Paris ñu ngi lay bu a baax. waaw c'est la première fois may woote quoi mais tout le temps dem lañ dem lañu déglu seen émission bi rafet na trop sax. merci beaucoup mm, maa ngi nuyu soxna Soos toog. maa ngi lay fay bu baax Ismaïla. d'accord mm, en en bon par rapport ak euh, sujet sujet bu tey yan jour yan bii nationaux lañ yoroo woo. Mm. je pense que bëri ah. Mhm. bëri na biir nationaux yi nga xam ne war nañ lañ woo ko mhm. te aussi bi biir nationaux yi faw ñu faw ñu leen teel a woo balaa ñuy am xam nga biir nationaux bu demee bu demee ba xam ne carrément mun na jouer équipe nationale France mhm. boo ko wooyee moom day aju quoi donc yaa ngi donc war donc war na leen mën a teel woo comme genre ñoom Pape Gueye ñoom Sofiane Diop ak ak euh, ñoom kii Boulaye Dia bu ko defee boo ko defee xëy na xëy na nañ am sens pour pour ñu am leen quoi. Mhm. voilà parce que ku si mel ni Pape Diop militaire kii Pape Gueye Pape Gueye mhm. te musée Marseille militaire bu baax la. Mhm. athlétique te aussi te aussi il est technique.

voilà ku su mel ni Moustapha Nam ay ñoom Sayer Thioune ak ñeneen ñoom tamit si si important tamit ñëwoo leen quoi parce que ñoom tamit ñu ngi def euh, progression tam bu am solo quoi. d'accord. Mm-hmm. wa voilà en loolu laa amoon lu may lu may wax. Mm-hmm. Mm-hmm. am na solo ma maa ngi leen. maa ngi leen gërëm di leen allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. ñu waaw maa ngi lay dégg. d'accord ñun ñu ngi lay dégg bu baax fan ngay wootee noo tudd. allo. maa ngi wootee Wuro Sogi. yaa ngi wootee Wuro Sogi. oui maa ngi lay dégg maa ngi wootee Wuro Sogi. d'accord noo tudd. waaw. maa ngi tudd Ahmed accord Ahmed yow la ñuy déglu yaa ngi ci yaa ngi ci biir émission bi. waaw dégg naa émission yi. Mhm. Ahmed xam nga nu ñuy def. da ngay jéem a da fi nga nekk après nga woote waat mhm. parce que déggante bi neexul. suñu technicien bi mu ngi lay tooñ naan wax leen Ahmed mu génn gétt gi. <laughs> réseau bi moo baaxut. d' accord après nga rappelé. Mhm. Mhm. Mhm. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen ñu ngi bu baax baax tur bi naka ak fan ngay woote. Seydou Sall ngi ci Gabon. yaa ngi ci Gabon d' accord ñu ngi rafetlu sa yaa ngi ci biir émission wax sa Ñu émission bi ngeen di def amna solo lool ñu ci bëgg ci ci gis ci ñu bopp lool sax su ne ñu ngi sétane émission bi jërëjëf way ci boy yi ngeen wax ni Sofiane Diop mu ko mëna a jot dina bax ci suñu milieu offensif bi lool ak boy bi mel ni Boubakary Soumaré momit boy bu technique la bu am avenir te fuñu toll ni suñu militaire yi ñoom ñëpp ñu ngi ci trentaine ñu ci gëna bari bëri Sidi sar ak euh, relève bi ñomit amuñu temps de jeu Sidi sar ak lu ndjay donc buñu mëne bi national yi pour remplacer pour euh, renforcer suñu équipe mom lelo ak buñu mëne am aussi latéral gauche comme Ismaïl Jacob mhm. wala ñu ut comme Abou Diallo mu nekk Paris mhm. parce que ñun dañu am problème latéral gauche mhm. Sabaly kese la ñuy yëbb côté côté gauche te moom droitier la gis ngeen lu muy def demi début de saison bi fii ci Bordeaux ci côté droite bi lay gën a gis boppam donc nek Allemagne buñ ko mënon a jot te defon defoon na benn mani manifestation né dafa bëgg jé Sénégal. ah mais Jacobs moom. Hmm? ma ni Jacobs mom fogg na ni instant bi ni perte ak aussi boy bi nek oui mais boy bi aussi am nañ ben militaire bu nek Belgique bu taxaw Aboubacar Koïta mu nekk mhm. première division Belgique maa ngi koy seetaan temps yëpp. mu ne bari muy def préparation bu baax def na mars mm-hmm. ak Udinese dugal na deux bi mm-hmm. moom mu ngi ci te milieu de terrain la si moom mm-hmm. jaajëf ñu ngi lay jaajëfal moom li may wax di rafetlu émission eh, di si kontaan lool. Mhm. merci beaucoup. ok mhm. ok. allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def Nafi. waa. waaw naka moom. nice kooka la. Ibrahima. Ibrahima Podor. waay. Ibrahima ci loo ne. naka Moussa maa ngi si Ibrahim, El Hadj. waaw Ibrahima ñu ngi lay nuyu di la ziar bu yan bi bi nga gis yu war a ñëw ci équipe bi. yan bi nationaux. Hmm. déjà pour man il faut ñu am benn arrière gauche. arrière gauche. par gauche de métier. kookal la. Euh, laa mooy ki nekk championnat Hollande. ki nekk championnat Hollande. Lansana Faye waaw. Lansana Faye. Laasana Faye waaw. Mm-hmm. mu ngi mu ngi Rotterdam Amsterdam defe naa quoi nekk. Mm-hmm. ko parce que gis naa ko gis naa ko muy football quoi am na que c'est latéral bu mm-hmm. moderne parce que day apporter sur nombre bi en attaque. waaw pour euh, Sabaly mën a jëlaat euh, couloiram boobu lañ boobu la ñuy xam ni Sabaly sa valeur quoi. waaw xam nga football bi tey aussi bon am ay latéraux baax da baax. ñoom ñooy apporter le surnombre en waaw gis naa aussi ci axe bi. boy bi nekk. man ni ma ni ma ni Fatou Abdou Abdou Cissé. nekk ci axe bi aussi yoo leen man kooku Ousseynou uh-huh. Ba. waaw Ousseynou Ba kooku aussi xam nga rek am na ñoo xam ne tey ils sont dans l'antichambre de l'équipe effectivement. Uh-huh. waaw gis aussi ah, John Lopy moom. Uh-huh. mu ñëw quoi John Lopy mu intégré équipe nationale A. d'accord. mën na ñii moom bëgg naa ñu intégré équipe nationale. léegi la de moom bàyyi li ngay wax. allo. oui allo oui. allo oui. oui ça va monsieur. ça bi naka la ak fooy wootee. mooy man noom Mamadou Thiam. Mamadou Thiam d'accord yaa ngi ci biir émission bi. je vous Oui, oui. d'accord Et en qui biir émission bi. chaque jour je ngi leen mais c'est la première fois ma am chance le leen quoi. d'accord Merci. Merci. merci Vous ngi koy jaajëfal bu oui oui oui oui merci beaucoup merci beaucoup. bon j'ai suivi le débat. Mm-hmm. et votre thème aussi est intéressant quoi. Mm-hmm. merci. mais à mon avis euh, Miss et et Bilal Mm-hmm. devraient être appelés par Alice quoi. Mhm. parce que c'est des joueurs très très talentueux. Mhm. United en Angleterre en mhm. et il est en train de faire d'excellentes choses hein, depuis la saison dernière. Et Boulaye aussi avait montré son intérêt de vouloir porter le mur de l'équipe nationale du Sénégal c'est des zones à récupérer, quoi. Parce que d'ici quelques temps, d'ici quelques années, Inch'Allah, mhm. le gën de am talent c'est des droits. c'est des binationaux Et de France nous, nous def un peu pied mhm. il ne faudrait pas répéter les mêmes erreurs il ne faudrait pas répéter les mêmes erreurs avec certains binationaux comme les Ferland Mendy et autres mhm. c'est vrai alors les nga de nga Ferland Mendy talent

Voilà. Il y a aussi d'autres jeunes, comme Bounassar aussi, Bounassar de l'Olympique de Marseille. Mhm. Degueuleux, lui, il était. Bounassar, est-ce que tu as une déclaration pour porte préjudice aussi Oui, là, je suis un peu d'accord avec lui, mais il faut faire faire l'intérêt général. Mhm. Mhm. Il faut faire faire l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt du football sénégalais. mais est-ce que est-ce que Bouna boobu noonu il est meilleur que fi nekk xam nga tamit bu ñuy xool d'habitude ay binationaux yu ñu war a woo ak yooyu est-ce que c'est important aussi ñu évaluer ñun tam li ñu yor en fait joueurs yi nekk ci poste boobu est-ce que Bouna Sarr est supérieur à ces joueurs bu fekkee benn milieu benn benn attaquant la est-ce que attaquant bi moo supérieur suñu attaquant c'est très important bon parce que Bouna Sarr est évolué dans le couloir droit. Mm-hmm. gisuma ko techniquement. Sabali par exemple. Sabali est, largement supérieur à bounassa mais Sabali, Sabali, Sabali, on l'utilise à gauche. Hmm? Sabali, on peut l'utiliser à gauche. Il est polyvalent. Mais pourquoi pas alors chercher un arrière-gauche de métier, comme qui gagne les arrière-gauche de métier, qu'on ramène poste bobu Sabali, c'est le meilleur à son poste, oui, oui, oui. Bon, c'est un débat en tout cas qui est ouvert. Ah c'est ouvert, hein? <laughs> c'est ouvert. Mais en tout cas, le que de veux comme vous le savez, il est talentueux. Mm-hmm. Et lui, il a montré son intérêt de, vouloir jouer pour le Sénégal. Quoi. Pourquoi pas l'appeler mm -hmm. Pourquoi pas l'appeler L'abondance de bien ne lui jamais. Mm-hmm. Parce que aujourd'hui, jour, il barre mon, intérêt équipe de D'accord waaw bah, inter intéressé les gens bi la quoi. Mhm. et y' a aussi euh, merci beaucoup hein, c'est gentil hein. Mhm. merci beaucoup merci beaucoup. Mhm. Euh, wax wax un point intéressant qu'on a eu à évoquer Moi, mooy ñu dem jëli leen léegi. bañ a bañ a a toog di xaar pour que yeneen yeneen yeneen histoire yi. parce que dal daf ñu dal ci le roi Sané en fait. Mm-hmm. le roi Sané bi ñu demee ba un moment donné ñu xam ne Sénégal ñàkk na ko. Mm-hmm. gis gis nga déclaration bi papam génn def. mooy mm-hmm. euh, Souleymane Sané. wax carrément que ne euh, tey jii nii Sénégal dañu toog di seetaan ba Allemagne jël ko ñuy soog a bëgg réagir pour pour recruter pour pour bëgg indi équipe booy bi ci équipe nationale bi. donc je crois que ñoom bi ñuy nekk bi ñuy nekk ci petite catégorie bi. dañ leen war a commencer. di xol naka li leen tàgg tàggatalee di pour indi leen Aliou Cissé def nako avec les Mousset mu wax ak mom téléphone je crois ak mhm. yooyu c'est important biñuy tollu toll avant ñuy nek par exemple ben Real Madrid par exemple euh, par exemple Fernand Mendy avant muy dem Real Madrid mhm. c'est sûr que bi muy nekk ci équipe championnat France amna démarche yoram def peut-être dina mhm. dina ñëw dina mën na Sénégal donc je crois que ñun dañuy bàyyi ba jour bi tak carrément nek benen niveau bo xamanteni ni France mu France day taxaw Sénégal bëgg ñëw taxaw pour pour recruter ko su boobaa dafay mm. dafay metti en plus bu ñu entamé benn dossier nañ ci aller jusqu'au bout pour moi un simple coup de fil ne, suffit ne, pas. ne suffit pas pour convaincre Pourquoi le joueur. Pourquoi pas aller, aller hein. voir le joueur, discuter avec, avec, avec lui, discuter avec sa famille même, mm -hmm. avec sa famille, waxtaan ak digé déjà lolo tax bu neex ma. C'est comme transfert. Dafay impliqué wu si si si si joueur bi en fait. da koy mm-hmm. da koy jël taf ko ci moom de telle sorte que bu la woowee tu n'hésites pas. Mm-hmm. tey jii gis nga France bëri na ay binationaux mais bul xam ban relation le direction technique bi ak coach bi am ak ñom bo xolé di Didier Deschamps ak avec ses joueurs tu as l'impression qu'il parle qu'il discute avec ses enfants da ngay am na benn genre affinité bu muy installé wa bu muy installé diggante mom ak joueurs c'est très important mm-hmm. allô allo sëñ bi couper le retour bi s'il vous plaît nga déglu ak sa téléphone wa maa ngi déglu d'accord tur bi naka fan ngay woté? man la booy Pikine man la booy Pikine mu ni. booy Pikine la booy Pikine la. booy Pikine. yow yow moom mii di wax de waa Pikine ñoo ko may jabar. mais après dinañ lijjanti loolu. xurunaar am nga fa fan ah. si la. <laughs> Ah, ah, booy Pikine la waaw d'accord amul problème naroo ñoo wax tur bi nii da nga koy leb wala. ci ah, ah, fan su nafi nga bokk wala ci fan su nafi nga bokk wala wa wa man kay ci fan ci ah nafi dafa am fan ci club pikine kuruna wa ci fan ci fan nafi la bokk la benn ñi le wa leg do ma wax sa tour nak ma xam ban tour lay inscrit ci fan sa club bi fi nga nara nek nak nag xol ba pet sa place ran la de allo <laughs> wi allo allo ce réseau ngi coupé man allo allo alo oui waa léegi doomu ma bi alo allo alo est-ce que allo ñu ngi lay dégg ma yow yaa ñu déggul apparemment waaw réseau baa ngi daw kay da ngay génn nga woote <laughs> sa sa fans club bi daal yaa ma catu xam nga fans bi ma waroon waxtaan ak moom ah <laughs> ci biir émission bi nga may mais yow waa Pikine ñoo la may yow fan club bi nga toog ba am soxna biir Pikine da ngaa bëgg ma wax non da noppi naa waxuma ah, baax na kon mais fan bu mag biir Pikine baax na gis nga yëpp Alassane lañ koy joué amul benn problème dañoo am Amina allo allo allo ça va ça va bien monsieur vous allez bien Oui, ça va nous nous leen di ziar di leen di la. Papis Papis Papis d'accord Papis euh, nous ngay élever toute la voix comme ça nous mën déggante bu baax. Papis depuis Espagne. Papis depuis Espagne d'accord vous êtes en direct dans l'émission yow la ñuy

ñu sëpp fi ñu juddoo mu xam muy France wala Allemagne fofu lañ fofu lañ gëna xam que Sénégal quoi. hmm aussi ñu xam ne maanaam boy bu ñu bu ñu pour ñu jot leen il faut ñu commencer def démarche yi depuis avant mm-hmm. ñuy commencer di di di di tàkk di tàkk carrément. Mm-hmm. te tey jour jour boo xamante ne français la wala allemand la dina jafe trop ñu dem ba équipe nationale France soxla ko. Mm-hmm. di def di di commencé di di di di ko approché wala équipe mm-hmm. concurrence bi day day day day xaw a dëgër ci ñun quoi il faut il faut ñu waxante dëgg mm-hmm. sëñ bi doguma la sax mais xam nga ah, lan mooy particularité entre France ak Allemagne par exemple. Allemagne amul double nationalité. Uh-huh. comprendre nga tey jii nii bu ñu damay dellusiwaat ci kaaw Leroy Sané bu choisiré Euh, Allemagne c'est-à-dire la nationalité allemande. Mhm. tey bu choisir Sénégal nationalité sénégalaise lay am. bokkul ak France bi nga xamante ne ni mën mën nga am voilà nga am double nationalité c'est pas pareil. Mhm. dëkk yooyu noonu boo xasee ba jël seen kii rek jeex na. le choix est définitif le choix est définitif quoi. waaw waaw foog maa fi man waaw d'accord fu mu gën a bëgg a waxee sax man ci ci ci côté sportif bi laay gën a laay bëgg a waxee parce que mhm. dina ci am ñoo xamante ne moment dina am boo xamante ne si boo leen boo leen approché peut-être mun nga am sens. nga nga nga am leen quoi. effectivement. Mhm. man foofu laay waxee. parce que boo mhm. xoolee ku mel ne yaa ngi wax sànq ci euh, Ferland Mendy ngay wax ni peut-être bu ñu ko approché woon jamono bi mu nekk sàmm na France mun am mun na am mën a ñëw. absolument absolument. Mhm. waaw loolu loolu dama la ciy confirmer man man dama dama dama ko seetaan émission jamono bi mu nekk Havre. moom ak ak chaîne chaîne télévisée boobu la Havre. mu ñu ko. mu wax ne moom reebam mooy football équipe nationale Sénégal. gis nga. Mhm. c'est-à-dire que moment boobu noonu. jamono boobu même. bu ñëwoon beneen affaire la. waaw li ma lay wax nii li ma lay wax nii voilà li ma lay wax nii man lu ma seetaan la boo xoolee mhm. moment boobu même buy football day gis banderole Sénégal ci ci ci ci ci poignet bi même bi muy nekk Lyon. xam nga yooyu c'est significatif bi muy Lyon Lyon la nekkoon après. bi muy nekk Lyon day mel ni gisoon naa ko mu sol. loo loolu Apour la ko doon defee. mais bu ah. fekk mu ñëwee Lyon rek. xam nga xam nga xam nga waaw. mais xam nga mu ñëwee rek xam nga xam nga politique mhm. après ñëw voilà ak politique ak ak ak politique gu lyonnais yi surtout sans Michel Oula. Mhm. toujours ay joueurs am daf lay dafay bëgg ñu doon ay international européen quoi que moom day def business. Mhm. parce que foofu lay gën a mun a gagné ci lay gën a mun a gagné benn. allo. moment boobu nag ci la commencé. Mhm. di commencé def xelam ci ci ci. ci France. waaw ma ne moment ma ne moment boobu ci la commencé def xelam ci équipe nationale France parce que boobu xam na ne mun na ci football. effectivement. Mhm. foofu la problème amee mais gis na tey daf ci am ay joueurs yu xamante ne si bu ñu leen approché woon ñu. Mhm. ay ay Boulaye Dia moo xam ay Sofiane Diop. ba ci ba ci Boubacar Soumaré moment nii am na am na yenn démarche yu doon def jege leen di waxtaan ak ñoom waxtaan absolument pour jot leen parce que ay joueurs yu am talent lañ. ay joueurs yu am avenir lañ. Mm-hmm. d'ici d'ici quelque temps mun nañ tàkk tàkk boo xamante ne si. Mm-hmm. bu ñu bu ñu concurrencer ak France dañuy ñàkk quoi loolu moom il faut ñu xam loolu. Mm-hmm. effectivement réalité la c'est un fait. booy ku ci dem ba bokk ku ci dem bokk ci sor sor liste bu descend rek commencé nga def sa xel ci équipe nationale France boo xam ne boo moytuwul pour Sénégal am na dina jafe trop. dëgg la voilà démarche yi nag démarche yi foofu laay waxee quoi il faut ñu teel leen approché teel leen jege. Mhm. peut-être mooy nekk sens bi quoi. Mhm. Mhm. mais aussi am na ko fa am na ko commencé woon ñu mel ñoom Moustapha Naam. genre ay ñoom Ousseynou Thioune joueurs yooyu tamit ay ay baax lañ joueurs am talent lañ. il faut tamit il faut tamit ñu suivre leen mais aussi am na benn booy boo xamante ne peut-être Sénégal yu bëri xamaguñ ko. xam naa am ah, mu ngi nekk ah, mi ngi nekk mi ngi nekk ci équipe Moussa Konaté nekk Amiens. Mhm. allo ah, ñu ko wax Iron Gomis. Iron mhm. Gomis. waaw man am na benn boy bu nekk Amiens bu ñuy wax Iron Gomis. Mhm. waaw kooku temps yi passé maa ngi gis benn interview moom aussi le même chose di Ferland waxoon la wax nee na moom rêve am fi mu ne. présenter dëkk boppam. D'accord. D'accord, on va suivre ce dossier. Merci. jour bu 31 la Sénégal Sénégalais, Sénégal yi bari xamaguñ ko mais jour jour bu am avenir ni ko bàyyi xel. Mhm. D'accord jërëjëf. allez merci. merci. Mhm. Merci. Ah. On rappelle que l'émission est sponsorisée par Canal Merci beaucoup, qui est en euh, promo jusqu'à la fin du mois de septembre. Décodeur à partir de 1000 francs. Euh, Diop, euh, Boy Sandika, Légui, Yaramam Tang mu maye fi benn casquette euh, benn mag ak benn ah, t-shirt voilà léegi léegi yaramam tàng rek mhm. mais Nafi est-ce que duñu commencé jël stratégie bu bu bu France di def mhm. par rapport ak joueurs binationaux yi mhm. par exemple dañ doon gis kaw bafe Gomis bafe Gomis en fait France daf ko jël sécuriser ko maanaam dañ lay ñoom dañ lay sélectionner sécuriser la maanaam bu ñuy si sàkk si ñaari dëkk ñoo la soxla ñoom teel nañ la sélectionner sécuriser la après même boo en France mais au moins yow seen joueur nga. Mhm. dans l'avenir, avenir bu ñu la soxlaa mën nga mhm. comprendre nga ñun mhm. Sénégal bon dañuy bàyyi ba yeneen dëkk bëgg ko jël ñu soog a bëgg ñëw entrer dans la danse. alors que pourtant nous nañ ko teel a jël sécuriser ko. savez, nous avons la am ak moom ay sélection am ak moom ay sélection bu ñu ak sélection de telle sorte que après du dem mën rejoindre équipe nationale. c'est-à-dire que suñu système de recrutement. Mon barul peut-être des années en arrière on nañu wax que le Sénégal euh, mënul def yenn yenn démarches mm-hmm. mais depuis quelques temps deux trois ans nous nañ ni am sélection petite catégorie catégories xamanté avons forte. dañuy mm-hmm. jouer compétition nous avons a am mm-hmm. U17 bu baax. sélection U17 bu baax. am sélection U20 bu on est en train de mettre en place une installation Yo xamanté joueurs yi nous ci pour permettre de dem ay regroupement fermé comme centre Guéréo am na tellement de choses yo xamanteni ñu koy def donc pour man lenn rek moo ñu manqué nan lañuy détecter nan lañuy recruter mhm. et ça ne devrait pas être quelque chose de difficile xam nga xam nga lu c'est pas quelque chose de difficile mhm. boo bo len Instagram, di xol Instagram dañuy ñëw Sénégal vacances ils sont mhm. accompagnés de leurs parents quand tu les vois évoluer sur le terrain comme ni ko waxé dañuy tak brassard bo xamanté vert jaune rouge lañ ci voilà, bu ñu di remettre trophée drapeau équipe nationale la sol un jour maa expliqué expliquer deux joueurs qui étaient à Lausanne Sport bi ñu leen di jox coupe euh, fin de saison bi euh, dañoo téye drapeau Sénégal Mori Diaw je pense que moom mi ngi Lausanne Sport batay benen joueur bi euh, Dandoy jóge na Lausanne Sport mi ngi dem Nice ci lañ ko wowe U21 Suisse c'est-à-dire que tay kon Suisse ak Sénégal mom moko ko mais ki nga xam te tey egg U21 Suisse dem fofu non, di fa jouer di marquer des buts c'est-à-dire que tañeer boobu la miin. mi ngi joué suma juumul ay éliminatoire coupe d'Europe voilà koku équipe nationale bobu le mine mhm. du mine équipe nationale du Sénégal alors que mi ngi U21 tay ñun am U20 bo xamanté mëna rivaliser. Mhm. ak ak équipe nationale bobu noonu. Mhm. pour man euh, ñi nga xamanté tay peut-être ki nga xamanté musul ñew Sénégal tamul difi koku moy difficile à convaincre mhm. mais quand on a tam ay vacances muy en famille au Sénégal forcément forcément y a quelque chose qui les lie avec le pays mhm. il suffit juste ñu am approche mi ki mais man Alamine je suis vraiment désolé mais euh, direction technique nationale mhm. ak suñu sélectionneurs yi parfois dañuy nelaw quoi dañuy nelaw carrément parce que message doyul. Mhm. contacter Instagram doyul journaliste yi dañ koy def. buñu mhm. bëggé contacter joueur Instagram lañuy def. mais yow tay en tant que sélectionneur bi tu dois être outillé ñu jox la ay moyens tu fais le déplacement nga jóge dem suivre comme matcham doyul nga dem nga tok nga waxtaan ak ay parents fofu mhm. la fofu la fofu la. football bi toll waaw. voilà mënuñoo tok rek ni comme ça d'accord. je ben comme plateau yi ni de. man j'ai l'impression que sélectionneur au Sénégal yi plateau yi lañuy sétane buñu paré ñu top ñu topp joueur boobu parce que parfois nga wax ak joueur. boo xam te wax ni mu ni waaye mës na ma woo na ma message mhm. wala mi ngi may suivre Instagram mhm. mais loolu ça ne suffit pas mhm. pour man dafa am yenn posture yoo xam te équipe nationale mooy li may wax rek teel sécuriser jour bi nga teel ko dem jël sécuriser ko même bu fekkee xam nga tey booy def sélection 23 wala nga dem war nga dem Coupe d'Afrique da ngay xool jour yi nga xam ne ñoom nga soxla tey jii par exemple Sénégal on a besoin d'un arrière gauche tey ji bu fekkoon dañu am kenn benn arrière gauche boo xamante ne nii euh, ci ñi wax nii ñëpp koo xam ne ku aay la mais pourquoi pas nous tel ko sécuriser dans l'avenir peut-être on on a la Coupe d'Afrique dans deux ans. pourquoi mhm. pas de nous servir dara. Mhm. wala bu fekkee ben poste boo xam vraiment Sénégal daf ci am ben manquement. mais pourquoi pas ñu xool ci jeunes faites mhm. bu fekkee suñu petite catégorie mënu mënu nous ko assurer. donc je crois que stratégie bi France di def ñun mom lañu def xolal France jeune jeune joueur bu mu euh, tout récemment Kaba Ninga noonu la tudd. Kaba Vinga Kaba Vinga. mais Kaba Vinga. Euh, France mo la gëna a beaucoup bu ko wawul légui ni da koy ñak bu ko wawul ni pays d'origine am la gëm. tellement qu'il est talentueux. kooku boo koy seetaan muy football c'est un régal. maintenant tay bu France tay déjà il est très malin bu démé ba sélectionner ba ko. c'est parce que xamna ni c'est un jeune bo xamante ni France soxna nako surtout benn période boo xamante ne nii ñoom soxla nañu seen dispositif benn benn jour bu am benn cent neuf. Mhm. mais daf ko indi. Mhm. daf ko daf ko indi dégg da koy sécuriser. Mhm. am ak moom ay nombre de sélection de telle sorte que booy bi du mënati dem beneen équipe nationale. man je euh, je pense que politique bi yëpp dañ ko jël concentré ko ci équipe nationale A bi. Ah, du coup on perd de vue ñi nga xamante ñoom ñoo nekk 19 ans.

waaw. waaw As moo woote de. Mhm, as ñu mhm. di rafetlu émission bi macha am na solo. Mhm. merci beaucoup di wax rek ci diine sunu yi ñu war a woon sérieusement bari nan ndax Sénégal li ñu yor ci ay diine sunu kenn xamul mu toll. donc fekk ni li duuf ci nag dafa yëg ci cën bi. ñaareel baat mooy xale yi am na fu ñuy xale yi dana am premier objectif du Sénégal. no xamni ñom dañoo juddoo France jàngee France yaroo France seen lépp France la mhm. seen xarit France la seen lépp France mhm. maam yéeg boole Sénégal mooy seen maam mhm. kooku nag boo bëggee xëy xëy ni ko ñëwal Sénégal sans nga def le siit kooku yaa ngi koy joxoo ya, ya, ya, ko cir sax daan doo ko forcé bu doon fu mu doon ci ñun tamit eh, réew ma ne ngay jàppe sa bopp léegi nag problème bi ma ngi nekk ci après ñun li ñu war a def ba mën a jot ci booy te ñuy bañ tamit di gaaw di gedd naan booy bi waxoon na lii nangam ak nangam booy yi dañoo am droit di réfléchir am droit may may temps ma ndax ñaari réew ñoo ma seq. Mhm. dëgg la ñun dañoo war di xool suñu intérêt kese. ñun Sénégalais ñu xar njaay. tubaab bi duñ def loolu mukk tubaab bi gis nga loo mën def bis bu la soxlaa tous les moyens dañ koy def ba jot ci Sénégal mais dootu ko waxati man mhm. <laughs> ci démb rabi yu rabi yu ma nga nee dafa geddal équipe nationale faalewu la mais bëgg dem ñoo ngi naa dañ Mm-hmm. alal bi sa intérêt ngay jiital bul xool lan la wax di intérêt li la amal mën a njariñ euh, seen jeu bi li la mën a amal njariñ fu mu mën di nekk jëli. dëgg la de. léegi nag pour man euh, pour man pour man suñu yi jàmbaar la ñoo ngi jëli ñu bari. Mm-hmm. mais moyens yi ñoo tolloowut. waaw ndax tey jii suñu u yi. foofu jëli ay diina sunu Europe di leen transport di leen indi fii di leen fay prime loolu ñun mu attanuñ ko fédération attanuñ ko. Mm-hmm. ndax équipe A bi sax état bi koy mujj di fay. Mhm. boo bëggee nga ne ko jëlil ci équipe U20 U17 bi u bi ay dix nationaux yu nekk Europe day indi fii ñuy def ay mat mhm. kooku day xaw a compliqué gars yi amuñu budget mhm. man kay li ma xalaat rek mooy ñu jéem benn entraîneur boo xam ne suñu interna enjeu international yi mu basé en Europe. di suivre nga xam si ni day am équipe boo xam si ni équipe bu Sénégal u boo xam si ni France lay basé wu. sàkk dat fii fa ñu def benn regroupement def ay match amical foofu. loolu dina permettre ñu teel a mën a récupérer booy yi nga xam ne Franc jëlagu leen. Mhm. teel leen defal ay sénégalais nga xam te nii match amical yi ñu am foofu ci biir France lañ koy am bu dee club lañ koy amal wala ci réew yi nga xam te ni U20 lay doon boo xam ne U20 Sénégal la mais nag day basé wu carrément en Europe ñu teel a récupérer booy yi mais jëlee fële bii national jëlee indi Sénégal ñu def ay match amical ak xam naa ne suñ fédération bi amagul budget. Mhm. ñin war a woo tamit bari na sérieusement ay ku mel ni rek. j'ai avenir la mais Boubacar booy marché bi Boubacar Camara yaakaar na Boubacar Camara kooku kooku moom mom siir kenn xam naa ne jot ci du xaw a yomb ndax moom dafa teg bët France France tamit teg ñu ko bët mais daal nan bañ a bàyyi rek te dem ci seen famille yi jéem a waxtaan ak ñoom ndax France tamit équipe baa ngi bëgg a saturé Sénégal équipe bu baax la boo seetloo France yeneen yeneen nationalité yi bokkut ak Sénégal yeneen africain yi France comme que xëccëg joué du hésité sax joué yi dañuy dem France nga xam di hésité di xool ba xam Sénégal wala France. voilà mm-hmm. boo nekkee sénégalais boo ñëwee ci équipe nationale am nga mille chance pour def coupe du monde am nga mille chance pour gagner coupe d'Afrique. Mm-hmm. ñi nga xam ñoo nekk ci équipe nationale bi. xañu leen dara tey mel ni Kalidou Koulibaly ku mel ni Sadio Mané ci joueurs yi dàq bal ci woon si leen bokk mhm. tey mhm. ñaareel ba di wax tamit euh, presse bi ñi ciy xel gis nga bàyyi na joueurs bii na yu lànk dañu seen liggéey moo tax ndax problème bi mooy dafa am yoo xam si ne ñu koy éviter di ko euh, véhiculer mhm. ay joueurs bi dañ koo xërmat kee danoo fekkoon ci moom ak gàllaay ci néegam loolu day tax ba seen waa yi duñ bëgg ñëw affecté loolu dëgg la loolu est-ce que c'est avéré non dafay non ay ay rumeur la bàyyi na ñoo xam te ni seen i waajur ci boppam ñu naan leen bu leen dem Afrique choisir leen France. c'est-à-dire que dafa am information yoo xam te c'est vrai il raison am na information yoo xam dafa inutile. Mhm. pour man voilà euh, da nga koy joxe noonu bu dul dëgg sax xam nga euh, bu dee dëgg sax kenn waru ko wax. Mhm. rawatina bu dul dëgg. Mhm. ndax loolu ay effet effet yu bon lay indi ndax tey ci ñee seen i waajur ñoo xam ne seen doom jëfandikoo yaakaar. mu yor leen dëgg la loo xamul xamul bu leen leen bu demee ci jigéen sax mënoon ko faa liggéey ba dootu mën dara tey hmm. kooku da nga naan bu dem dëgg la hmm. bari na booy hésité loolu ci la bokk ñu leen hésité loo hmm. moo tax affaire bi sax il faut que ñu éviter di di véhiculer yenn message yoo xam si ne sérieusement c'est négatif pour équipe nationale ak dellu Sénégal dëgg la am na solo waaw di rafetlu waxtaan nag jërëjëf jaajëf merci beaucoup li mu wax am na solo euh, parce que Alamine équipe nationale c'est en tout je pense que yéen ñi nekkoon keer dund ngeen ko euh, cohésion bi nga entre l'équipe nationale la fédération ministère des sports journalistes ici. Euh, tey moom moo pour équipe bi bon je me dis que ni Aliou c'est d'accord il fait un bon travail mais c'est aussi parce que euh, Taïdini, ses relations se sont améliorées avec la presse taylor mm-hmm. lolo porte tanière bi ce n'est pas fermé à la presse am cohésion forcément de indi ay résultats Allô, bonsoir. Bonsoir. Eh, c'est Samba Dianfo, je vous appelle depuis l'Italie. C'est Samba Dia. Samba Dianfo, Dianfo. Samba Dianfo, depuis Italie. D'accord, Samba, monsieur, monsieur Dianfo. Bienvenue dans, dans l'émission Voilà. Ok, ok. man. <clears throat> pour moi, il faut intégrer Fab celui de Marseille. Oui. Oui, parce que c'est un bon milieu de terrain défensif. on a des milieux qui, sont, qui commencent à vieillir, Ganagé avec Kouyaté. ouais, pour moi, c'est ça ma vision. Quoi. Il faut l'intégrer. Il faut lui, il faut nous dépanner avec beaucoup de choses. Parce que maintenant, il y a Ganagé qui commence à perdre beaucoup de balles quand, quand on joue. Mhm. Donc, et aussi, il faut qu'Ali Sissé commence et laisse de faire jouer en défense. Il doit jouer au milieu. Mhm. En plus, les latéraux, normalement, les doit jouer à droite et on cherche un latéral gauche. C'est mieux pour nous et puis aussi intégrer les, les, les, les jeunes joueurs comme John Lopi. Il est très, il est très talentueux, il peut jouer, même si c'est 20 minutes par match, il peut jouer, on va voir ce qu'il peut donner. D'accord, merci mhm. beaucoup, c'est gentil. Merci, merci, merci. Ok. Merci. On peut enchaîner mm. avec euh, Yérén internet yi. indi de mhm. Allô? Allô allo. allo oui salaamaaleykum. allo. maaleykum salaam. sëñ bi na nga def. oui sport. ñu sant bu baax. tox bi naka la. ça va. Pape Moussa Grand Yoff. Pape Moussa naka mu. ça va bien yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant bu wér. ça va naka mu. waaw ñu ngi nii de Pape Moussa moom moom moom. ah dëgg la waaw Pape Moussa ñu ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi dellu di ziar. Mhm. ça va tamit te te mu tegu moom c'est intéressant quand même comme ni ngeen koy defee à chaque fois avec ouais ouais ouais parce que les binationaux moom je pense que soxla nañ leen mhm. parce que avantage avantage binational mooy mooy gars yi dinañ dinañ ma mere mais mhm. il joue avec avec âge réel am mhm. te te te fii bon xam nañ xam nañ mu demee quoi parce que joueurs yu bëri moom dañuy ñu passé le tailleur te te bien <laughs> laal na fu metti <laughs>

indi ko amul amul amul perte mhm. parce que boko indé nga jox ko la nationalité sportive mhm. bu réussiré da ci gagner bu réussirul amul problème nga baye ko mu jàll mhm. parce que y' a y' a des binationaux yo xamné ni jaar nañ fi comme les Jackson Mendy les Ricardo Fati on les a jël nañ len bien ils ont joué en équipe nationale petite catégorie ñu jël nañ len doxu ñu ñu bàyyi leen ñu mais bu ñu doxoon do leen mën jot man je prends je prends tout le temps l'exemple de Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly dafa rëcc la France da lay parce que nous, parce que ni mu ascension moo gaaw mm-hmm. par contre il y a des binationaux yoo xam on doit les suivre comme euh, euh, le Pape gay de l'Olympique de Marseille mm-hmm. Pape gay, Pape gay, il a 21 ans mm-hmm. nous boo xoolee suñu milieu de terrain on a les Kouyaté et Ganagay les les ils sont dans les 29-30 ans Mm-hmm. Pape Gueye beaucoup de jëlee intégré ko fait sept ans mën le gérer milieu terrain Et il est talentueux aussi il l'a mm-hmm. montré hier on ne peut pas avoir un national qui joue à l'Olympique de Marseille et ne pas l'appeler mm-hmm. de même que Boubacar Kamara Boubacar Kamara euh, il ma la dernière coupe du monde je l'ai suivi sur Instagram l'ai jubilé après la victoire du Sénégal devant la Pologne l'ai jubilé ça veut dire que il a amené ba mi ngi sélection sénégalaise. Mhm. mais il est en train de faire des performances est-ce que nous dinañ ko faire jot. je pense que il est dans la nationaux de leen a détecter très tôt ñu comme les Sofiane Diop. il y a mhm. quelqu'un qui a parlé tout à l'heure il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de Lansana Faye. Lansana Faye c'est un jeune boo xam ne fait un an à lui si c'est woo Hollande de ko mhm. je suis sûr parce que c'est un joueur c'est un gaucher de métier un bon latéral gauche. Mhm. on est obligé de prendre sa et de le faire jouer à gauche de dépanner. Mhm. donc quand on a quelqu'un comme Lassana Faye il est jeune Il a 18 ans il est le donc pourquoi ne pas l'appeler très tôt balade européen du di parce jël. d'accord presque presque ils sont hésitants à part Issa Diop qui dit clairement que lui il est français donc nañ pas tenter rek parce que mhm. mënuñu si ñàkk quoi. nañ leen tenter. waaw ouais. Merci, pas ok, merci, merci, je vous remercie. Ok. Merci, merci. Je vais enchaîner avec d'autres personnes. y mhm. Allô Allô Allô, oui, salam alaikum. salam. thème tey bi n'est-ce pas mooy loo ko ñan ñooy frappé à l'équipe kii porte équipe nationale waaw loolu am na solo mhm. euh, man sama xalaat je pense que ni am na par am na am na benn joueur boo xamante ni ça fait un bon moment muy muy frappé à la porte da doon def da def ay performance avec équipe nationale locale bi mais vu que est sommes dans un club européen je pense que loolu moo ko handicapé mais maintenant mu dans ci club européen mu ngi FC Bruges mooy Youssouf Badji mhm. et fan Et Fanny, nañ il a été nommé joueur du mois euh, FC Bruges devant Crépin Diatta devant d'autres joueurs Il a a yàgg jouer joué mhm. donc je me dis que a une performance il defal actuellement une préparation aussi très bonne préparation la def FC Bruges je pense qu'il mérite euh, d'être convoqué en équipe nationale maintenant am a d'autres joueurs où xamante ni mën nañ wax ni nañ mais je me dis que pour nous pour nous convoquer il va falloir nous nous confirmer muy kan muy Sofiane Diop muy Pape Gueye pour nous confirmer cette performance parce que nous ngi joué jouer Pape euh, euh, Sofiane Diop premier match de la saison Pape Gueye aussi Hein, match premier match complet donc va falloir performance nous confirmer ko euh, d'ici octobre pour que nous pourquoi pas parce que li est def ils ont été bons. cest qu'il Google na qui def na performance face à Paris mais dans la continuité il faut qu'ils aient des performances continues performances yi def il soit il pour nous, mener les mots parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été fëgg yu dul ñoom yoo xamante ni woowagul leen je pense que ñooñu ñoo ëppagul sens pour ñëw comme ni ma ko waxee Youssouf Badji moom il est prêt il doit être convoqué prochain bis bi maintenant ñaar ñi nag moom pour ñu woo leen va falloir qu'il confirme leur leur leur très bonne performance. d'accord am na solo performance c'est la base en fait. oui et j'avais aussi benn euh, suggestion mooy mooy mooy ñaari joueurs yi je pense que. pap gay buñ ko jema a associé ak Crépin Diatta mën nañ pourquoi pas prendre reprendre le relais eh, le, le relais de qui de eh, Idrissa Gana Gay ak ak Cheikh Kouyaté parce que ñom ñaar on sait qu'ils prennent de l'âge donc pour, pour, pour penser à la reconstruction de l'équipe je pense que pap gay Mamadou Loum Ndiaye et, et, et, et Crépin Diatta peuvent être notre futur au milieu d'accord lola lola amon ci lola amon match ngay jaajëfal di la may euh, tisetu kanaal ak mëg ak euh, ak casquette xam naa xam naa Collé dina jël sa numéro ci comme ça mu xool euh, nu mu lay nu mu lay contacter comme ça nga ñëw jël si ko wala nga yónnee ku la ko jox incha allah. waaw ok merci beaucoup. voilà ku tudd Collé dina la contacter jërëjëf. merci beaucoup je pense que Elamine thème mais dinañ revenir de façon plus large pour parler aussi des autres joueurs qui ont été formés ici au Sénégal mhm. ñu a à l'étranger di fa de bonnes prestations mhm. à l'image de Moustapha Nam que nañ mhm. aussi marque des buts peut-être euh, division Union de Ben, mais aussi euh, Youssouf Badji Youssouf Badji euh, Mom, jot Defsa. Euh, des choses ak li nga xam équipe nationale U20 b mhm. peut-être ak bi nationaux c'est un dossier qui est urgent. parce que mhm. foofu xëccoo la ñu jël ko. allô. oui salam alaikum bi doo wàññi retour bi pour ñu gën la dégg. oui allo. allo oui. oui salam waaw dama bëggoon. maaleykum salaam parce que émission bi. d'accord yaa ngi ci biir émission bi yow la waaw man koromaak la tudd maa ngi wootee bordeaux koromaak voilà waaw man lu may wax si émission bi mooy maa leen di jaajëfal li ngeen def mhm. am na solo lool vraiment jërëjëf maa ngi leen di seetaan tous les jours la première fois may participer kanam même waaw li ngeen wax si man mhm. lu ma si am suma contribution mu ngi c'est vrai que mhm. Sénégal da ngay xam il y a plusieurs catégories amna ñu ko wax fii ñu bëri wax nañ fi ay contribution yoo xam ne yu am solo la. Mhm. alors Sénégal dafa yàgg am ay talent kooku bu lekk loolu ñëpp xam nañ ko Sénégal joueurs yu mag lañu yor mhm. xale yi nag aussi naa fi wax na ko sànq. Mhm. catégorie bi ñuy temps yi la fédération ñu ngi def liggéey boo xam ne liggéey bu am solo. wax dëgg yàlla macha allah xale yi ñu ngi def loo xam ne vraiment ak d'ici quelque temps je pense ça va aller de mieux en mieux les ah, léegi qu'est-ce que les binationaux peuvent apporter au Sénégal mhm. question bu foofu la Les mhm. léegi man binationaux c'est vrai que binationaux au niveau des même niveau que nationaux c'est vrai que nañ jël suñu nationaux nationaux yi ñu jël mhm. kooku kenn du ko werante problème bi kay mooy naka imaginer ben processus wala ben idée bo xamné ne dañuy mën jël tebbi talent yi parce que talent les gros talents lañu parce que Sénégal bëri na ay joueurs yu baax mais mooy exceptionnel moo tax ñuy wax exceptionnel nag pour nga am leen il faut nga def benn stratégie boo xam ne da ngeen di teel a jël parce que ñoom Sofia nag ñoom ñu ñu ñëpp c'est trop tard nañu waxante dëgg ñoom ñëpp bu la kenn ndax c'est trop tard góor ba mu dix-neuf ans ba joué ci équipe première France bu la kenn ndax catégorie boobu moom ay ay ay c'est vrai c'est des talents mais on peut plus les avoir problème bi kay mooy naka la ñuy def pour que ñoom Safiane ñu teel leen jël avant ñu egg 16 ans si affaire bi yëpp avant 16 ans la avant 16 ans am na ko quoi léegi benn solution ne naka lañ mën a def même au niveau de la France on pourrait aussi ñu def benn sélection locale en France en Europe n'importe où pour que booy ñu ñu intégrer lañ ñu def la ay test yoo xam ne wala ay matchs amicaux yoo xam ne da leen di intégrer loolu rek la solution bu foofu la ne parce que c'est vrai au Sénégal waa ji wax na ko sànq amuñu moyen boo xam ne dinañu indi dem compétition yi boy, yi ñu bàyyi fi li ñu mën a am def foofu ñëw en en au Sénégal c'est pas possible ça c'est sûr que c'est pas possible. Mhm. dañoo waxante dëgg mhm. problème bi kay nañ fexe ba jël booy yi avant seize ans waaw boy, yu baax yi moo la wax il faut ñu tester leen def ay match fii ñu intégrer c'est vrai que c'est pas définitif mais ça permet au moins ñu def benn pas au Sénégal Pourtant, tax ne suba. de temps en temps demee nationale bi pourtant de temps en temps ñu am benn U20 wala benn U17 boo xam dina rejoindre dina rejoindre équipe bi donc euh, je pense que li nga wax c'est vrai c'est-à-dire que ñu gën a impliqué wu ci ci formation jeune sénégalais yi nekk à l'extérieur en fait mais c'est que U20 pour moi u c'est ma mon la wax c'est trop tard am moi U20 mooy xale am 19 ans mais mhm. 19 ans les gros talents ils sont des clubs mhm. te xale bu amee club am contrat c'est trop tard trop kay c'est trop tard c'est que xalé bu demee ba U20 dans catégorie am na une catégorie. ne ba Nous comme ñu sont wax c'est vrai que une euh, catégorie jouer France nous, xam ko bu nous, ñooñu mën na nous, nous, ça c'est vrai ñooñu nous, mën nous, mais Sofiane seen xel quoi xam nga c'est pas sûr qui ñu France c'est pas sûr mm-hmm. chance c'est pas possible mm-hmm. avant la impliquer len ben match deux matchs comme ça au moins ñu am ben atu bo xamné suba bëss bu ñu explosé ñu oleen xolal on vous a appelé une fois et puis ñu garder contact bi comme ni ko tànk na fi waxee mhm. de temps en temps am na koo xam ci fédération de temps en temps ah mhm. mu leen di oo di oo parrain di parrain ñoom mhm. loolu rek la c'est important c'est simple ça ne nécessite pas beaucoup d'argent en fait jërëjëf merci beaucoup avec foofu rek la waaw jërëjëf merci amna solo ma ngi leen di nuyu ñëpp waaw jërëjëf merci beaucoup jërëjëf on enchaîne

c'est un projet. Mhm. peut-être que amuñu amuñu moyens yi xaalis aussi day mhm. manqué. Mhm. on sait bien tout ce qui se passe en Afrique. ce n'est pas seulement un problème au Sénégal dis nañ fi fii ay Maliens les Espagnols. espagnol lañ des choix mais euh, tey jii nii mën dans l'avenir fii ak pas de ko loo xamante c'est urgent. mais fii ak 5 ans tey bëgg nañu. bépp joueur boo xamante am possibilité de jouer avec l'équipe nationale du Sénégal balaa ngay am 15 ans. ñu mën a wax ak yow mais ma xam lan lay bañ. man man ce que je regrette en fait yi nek xalé sax lañ leen gëna mëna jox fibre patriotique bo voilà man man limay regretter rek moy mhm. yow nga dem pis joueur bi ñëw toga ah. message ko ñëw toga man lo mënuma ko nangu loolu day métti day métti mhm. on a quelqu'un vas-y allô répondre automatique allô wa na def ça ñu ngi sant bu baax tour bi naka la ak fooy wootee allô Allô On l'a plus mhm. Donc voilà. Euh, on, rappelle, que l'émission est accompagnée par Canal Plus. Canal Plus en promo fin septembre. Mhm. Je vous décodeur de 1000 francs Vous abonné ou mën dispositif disposer ci chaîne sport euh, suivre cinq plus grands championnats yi. Mhm. Euh, ci ci qualité image bu rafet fête ak ay plateau yoo xam te débrief yu am solo. am nañ allo allo oui salaamaaleykum waaleykum asalaam naa ngeen def ñu ngi fi sëñ bi ça va alhamdulilah alhamdulilah tur bi naka la man Mamadou Mamadou fan nga ñuy woowee di tali Italie fii d'accord Mamadou yow rek la ñuy déglu waaw man kay sama xalaat eh, suñu équipe nationale ak suñu équipe eh, beneen équipe bu ndaw bi mhm. il faut balaa ñu balaa ñu wax équipe eh, grand équipe il faut ñu wax eh, beneen équipe bi équipe ndaw bi. équipe bu ndaw. Mm-hmm. waaw équipe A bi. Mm-hmm. il faut ñu soutenir suñu xale yu ndaw yi il faut ñu soutenir xale yu ndaw ñi jàngal xale yu ndaw yi football. Mm-hmm. bañ ñu football Afrique. mun nañu emporter dara. mais tant que tant que euh, maîtrise yooyu suñu euh, euh, xale yu ndaw yi fi ci Sénégal tant que maîtrise ñu xale yu ndaw Sénégal duñ mus a jël coupe ci Afrique. oui tout revient à la base tout revient à la formation ici ak ak niveau championnat. exactement là je suis parfaitement d'accord. exactement. Mhm. exactement il faut que ñu maîtriser suñu xale yu ndaw ñu jangal xale yu ndaw ñu yóbbu ko championnat Afrique champion league champion Afrique tant que yóbbu ñu suñu xale yu ndaw yu championnat Afrique duñu jël coupe fii. Mhm. suñu suñu ñoom Sadio Mané ñoom Khalidou Koulibaly ñoom miin nañ jouer Europe ñoom miin nañu fi jouer Europe mu jouer fii ñoom suñu demee Afrique dañu mooy talante ak ñeneen ñi mais xool leen Algérie lu ñu def Sénégal aller retour xale yi Algérie yëpp xale yi Algérie xale yu ndaw yëpp dañu jouer Ligue champion Tunisie yëpp xale yu ndaw yëpp majeure partie xale yu ndaw yëpp dañuy jouer maîtriser nañ football Afrique dañuy jouer Zemmelville Égypte Algérie maro Casablanca xale yëpp dañu joué diggante ñoom dañu joué mais ñun suñu xale yi duñu joué ci Ligue champion Afrique tant que xale yi suñu xale yi duñu du joué Ligue champion Afrique duñu mësa jël coupe ci af Sénégal. dëgg la. Mhm. il faut que ñu maîtriser suñu xale yi ndaw ñu jàngal suñu xale yi suñu base suñu jàngal suñu football Afrique tant que mais ñu football Afrique duñu mësa jël fi coupe. d'accord merci beaucoup. il faut il faut il faut que ñu maîtriser suñu xale yi. Mhm. région yi Sénégal yëpp. dañu war a euh, jouer ñoom di suñu diggante dañu war a jouer ci ñoom diggante waa Saint-Louis waa lépp yëpp dañu ku chaque région mun na taxawal benn équipe ñoom équipe yi dañu jouante diggante ñoom dañu miin football football bu baax suñ ko yóbbee dañ ko tànn joueur yu baax ñu koy yóbbu ci Ligue champion Afrique dañu jouer ci Ligue champion Afrique suñ jógee foofu mun nañ dem yóbbu ko ci équipe nationale ñoom mhm. mun nañ am dara mais tant que maîtriser une base bi suñu base bi a am am talent mais talent. Donc, mhm. du mhm. c'est vrai merci beaucoup. Donc, du il faut il faut que nous maîtriser base mhm. d'accord c'est important. ok merci merci. merci Merci. Euh, euh, merci. championnat <coughs> parce que Merci. Merci. talent Merci. mais talent à l'étranger après Merci. Merci voilà day on a vu ça avec le FC Metz bari na ay sénégalais mais nous en difficulté parce que Diallo va certainement quitter le club donc c'est remplaçant peine à lui trouver pourtant ci say remplaçant ci ci y a un joueur bonté Ibrahima Niane championnat local mhm. euh, son match. Mhm. j'ai regardé son match contre c'était Nantes Nantes c'est ça. non non je sais plus Metz match mooy xool style de jeu Ibrahima Niane maintenant je me suis dit Ibrahima Niane style de jeu am nekkul lolu mhm. c'était un joueur quand même qui qui était très talentueux qui mhm. était. Euh, télé 38 ba pare nekk koo xamante ne ni ballon pied il était à l'aise mhm. mais léegi da ngay sétane Ibrahima Niane tu as l'impression que ne il est il est il est juste si li nga xamanteni mom moy les duels alors que Ibrahima Niane son son son en fait li nga xamanteni mom moy forum moy c'est un joueur très rapide très rapide très technique, mhm. ballon pied, bah, paraît efficace. Mhm. Donc, les, je le vois faire beaucoup de duels, mais je ne je comprends plus en fait style de jeu que je mom la abordé wala mom lañ ko abordé mais mhm. vraiment war na style de jeu parce que nekkul woon loo xamante ne ni bi bi loolu la bàyyi Sénégal bi muy au Sénégal c'était un jeu très technique ñëpp xamoon xamoon Ibrahima Niane ci technicité am ak efficacité mais xam nga quand tu pars à l'étranger et que ce temps de jeu wàññeeku déjà un deuxièmement tu passes pour le numéro deux parfois sax yow euh, saison bi liñ ci jouer ci match dafay nekk en deçà ci yow li nga doon jouer ni sa volume de jeu bu manqué wé tu perds tes repères carrément ci biir match bi mais loolu yëpp dafay ñëwaat ci niveau de jeu bi fii ci championnat local bi Alamine si on n'arrive pas à avoir un bon niveau fii après suñu talent yi dañuy dem rek mais tout le temps dañuy dem di wëri ji ay binationaux mhm. pour mën a ñëw combler waat fii ci équipe nationale du Sénégal bi dañuy tëgee émission bi ak li mhm. Abdoulaye diow euh, doyen Abdoulaye diow doon wax football ci réew Mm-hmm. football ci en fait l'équipe nationale c'est l'émanation des clubs de cœur mm-hmm. si l'équipe si les clubs se portent bien l'équipe nationale s'en porte que mieux mm-hmm. c'est-à-dire que football équipe nationale dafay basé baser ci football football bi doxee football bi équipe nationale bi jëm kanam c'est-à-dire que sunu joueur le yi bu ñu amee bu leen tegee ci ay conditions yu baax ñu mën a di progresser di évoluer ñu am fi ay jours yu baax. Mhm. avantage équipe nationale. on n'aura plus besoin de personne euh, on en profite comme ñu ngi fin ou émission bi pour souhaiter un joyeux anniversaire aux natifs du 14 septembre Pape Matar Sarle la ak euh, Pape Abou Cissé. Mm-hmm. voilà ñoom ñooy natifs du jour yi ma euh, nga fàttali PMD que ni mm-hmm. am na fi loowam. Mm-hmm. Euh, boo xamante war na ko mën a récupérer il peut venir dans la semaine. wala wala mu yónnee ma bàyyi la nga tàggatu. voilà di jox internet du rendez-vous demain inchallah allah euh, ci beneen thème ak euh, émission wax sa xalaat. Mhm. ñi ngi nuyu ñëpp di jaajëfal wa groupe whatsapp bi wax sa xalaat di leen jox rendez-vous demain à partir de 16h inchallah Alors que la Ligue 1 est déjà lancée. Oh le vertige, le vertige La Première Ligue, la Serie A et la Liga s'apprêtent déjà à faire leur grand retour. On sent qu'on est sur un, volcan. Et cerise sur le gâteau, à partir de cette année, le Bayern, champion d'Europe, rejoint ce casting de rêve avec l'arrivée de la Bundesliga. Un cadeau incroyable, wow, absolument somptueux, XXL. Du talent, du talent fou. Les plus grandes stars, les plus grandes équipes, les plus grands matchs sont tous sur les chaînes Canal Plus Sport.